وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أشهد أن محمد رسول الله أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من صفة التي يتصف بها رب العزة سبحانه الحكمة والعدل فهو الحكيم الذي يدع كل شيء في موضعه فلا ترى في صنعه اختلال ولا في حكمه تناقض قال تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور وهو عدل الذي لا يظلم العباد قال عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد mbokk yi ci yàlla ginnaaw ba nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi sunu xutba mooy zahara al fasad fi l barri wal bahr ab aya alquranul karim ca suratu ruum aya 40 borom bi ne yàqute feeñ na ci suuf si ak géej gi comme ni ngeen ko xamee sunu borom subhanahu wa taala dafa bokk ci ay melokaanam ya mu mel moom yàlla mooy ku xereñ la waaye ku maandu la xereñ ak maandute ci melokaanu yàlla yi la bokk moom yàlla dafa xereñ ba lépp lu muy def fi mu ko war a def la koy def ak ni mu ko war a defee ak ni mu ko bëgg a defee moom yàlla kenn du gis ci bind gi mu bind lu wuute loola tax mu woonu pour nu xool ci bind bi mu bind ndax danañ ci gis safaan lu wuute mu ne moom yàlla moo bind asamaan juróom-ñaar moo bind suuf si waaye ci bind bi mu bind asamaan tegale ko mu ne maa tara fi xalqi rahmaani min tafawut xool leen moom yàlla moomu tudd rahmaan sàkk gi mu sàkk ndax gis ngeen ci lu wuute mu ne ngalawaay xool leen asamaan bu baax penku ak sow ndeyjoor ak càmmoñ xoolal asamaan ba fu sa bët yem ndax diñ ci gis lu wuute bul doyal benn yoon mu ne dellool say bët farji il basar càmbaral bu baax xoolal hal tara min futur doog ci gis dara moom yàlla wa huwa al adl mooy ki maandu du tooñ jaam ñi laa yazlimu al ibad moom yàlla moo ko wax nee na duma tooñ ci hadisul qudsi mu ne inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman baynakum fala tazalamu man yàlla maa leen ëpp doole maa leen mën ndax maa leen sàkk maay seen boroom waaye duma leen tooñ ndax tooñ dama ko araamal ci sama bopp moom yàlla nee na wa loolu wax naa ko ba pare du musa deñ maa yubaddalu lqawlu ladayya wa ma ana bi zallamin lil abid yàlla nee na sama wax du soppeeku man yàlla duma wax waxaat wax waxaat mbindeef moo koy def amma yàlla moom du kooku nee na man yàlla duma tooñ jaam ñi moo tax ku def lu baax man amila saalihan mu ne fali nafsi ku def lu baax sa bopp nga ko defal wa man asaa fa alayha ku def lu bonit sa bopp nga ko def ku def lu baax ci jaamu yàlla na ñu yëg ne defaloo ko ma sàmba defaloo ko ma demba defaloo ko sa wéyjur defaloo ko sa kenn sa bopp nga ko defal waaye ku def lu bon it sa bopp nga ko def yàlla nee na man borom bi tabaraka wa taala duma tooñ jaam ñi wa ma rabbuka bi zallamin lil abid zahara alfasadu fi lbarri walbahri wa min muqtada hikmatihi wa adli subhana hal jazau lihsan ila lihsan dafa bokk ci dogali yàlla yi ak ci xerañam moom yàlla ku def lu baax rek am lu baax waaye bokk na ci maandu teem ak ndogalam moom yàlla zalika an lam yaku rabbuka muhlika alqura bi zulmin wa ahluha gafilun moom yàlla dafa bokk ci ay dogalam du tooñ benn dëkk benn dëkk moom yàlla du leen tooñ dëkk bu yàlla teg mbugal rek nañ xoolaat seen bopp bokk na ci aaya yàlla yi ak maandu téem ak yërmandeem ci jaam ñi aaya bi mu wax ne zahara alfasadu fi lbarri walbahr bima kasabat aydi nnas liyaziqahum baada alladi amilu laallahum yarjiun borom bi nee na mooy yàlla fees na suuf fees géej te lépp doomu aadama yi ñoo ko def waaye loolu yëpp doomu aadama yi def lu tuuti laa leen ci fay ci mbon giñ def lu tuuti ñun dañuy def ba mu fees yàlla bu ñuy fay tuuti la ñuy fay lan mooy alfasaad lan mooy yàqute lan moo tax tey dëkk bi yàqu ba ñëpp ànd góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp di ñaan yàlla yàlla ne kacc téye ñaan yi lu tax alfasaad hiya al uquba al ilahiya التي يرسل بها المولى جل وعلا على من يستحقها من أهل الأرض بسبب معاصيهم وظلمهم yàqute mooy mbugal mi nga xam ne yàlla daf koy teg jaam ñi moom yàlla jalla jalaaluhu mooy jël mbugalam teg ko ci ñoo xam ne ñoo ko mooy mu neex leen moom yàlla mu mbugal leen ci waa suuf lan mooy sabab ba yàlla di teg mbugal moomu ci jaam yooyu ndax seen bakkaar yu bari ak seen tooñ yu dul jeex mooy yàlla yooyu nga xam ne doomu aadama yi def nañ ko waa suuf mu fees dëkk yi fees gox yi fees géej fees géer yi dem ba ci sahara ba ca désert ba tey partout doomu aadama yi fépp la ñuy mooy yàlla ñee nga ca àll ya ñee nga ca géej ñee nga ca sahara ba ñee nga ca asamaan si ñee ngi ci biir géej gi ñi ngi ci jaww ji mooy yàlla yu dul jeex da ngay gis ku luwee bato ba digg géej lan la fay defi day mooy yàlla nga gis ku tukki ba ci biir àll bi foo xamee dootul gis jant lan la fay defi day mooy yàlla fu nekk partout moo tax yàlla ne zahara al fasad fi l barri wal bahr fépp la mooy gi yem nee na fii amaqi sahra ba ci biir biir désert ba ay nit dañ fay dem def seeni tànt di mooy yàlla wa min al fasadi allazi yuaqabu bihi al mawla jalla wa ala bokk na ci mbugal gi yàlla di teg jaam ñi suñ ko moyee ba mooy gi tasaaro bokk na ci mooy yooyu alqaht mooy bekkoor comme tey Sénégal ni mu bekkooree ñun ñëpp ñuy ñaan ndox yàlla ne tacc téye ndox mi wa qillatil amtaar néew taw taw bi du taw fekk du nit ñee tax muy taw waaye rabu àll yee tax muy taw wal amraad feebar wala dëkk bi dugg leen ci hôpitaux yi doomu aadama yi ñu ci ëpp dañuy dox waaye koo ci gis am na lu muy daaguwaale am na feebar bu nekk ci moom feebar yoo xam ne kenn xamul fu mu jógee wal awja ak ay njàqare war riyaax ngelaw yi wal asatiril mudammira xoolal États-Unis deux semaines moo ngi tàkk kenn mënu koo fay Indonésie tremblement de terre moo fa am boo xam ne kenn xamul li fa dee léegi maa ngi xool journal bi France 24 tremblement terre bi bàyyiwul sax jàkka yi lépp la yóbbaale ñooñu tey seen vendredi ci ay tànt la ñu lal daal di julli mbokk julli di ndax mbon goo xam ne dafa fees àddina bokk na ci mbugal yi yàlla di tegaate mooy wal xasf al igraq wa tuufaan effacé gi yàlla di effacé nit ñi suuf si muy xar di képp nit ñi waaye lab gi muy labal nit ñi mois de juillet bii nu génn ak fii nu toll li dee ci géeji géejawaay gi kenn xamul nu mu toll ba gouvernement bi di ci doog a wax commencé génn ay nangam nangam nañu bàyyi li nañu bàyyi lii te li gën a yées mooy kii tëgg soirée bi day nekk ci kaw podium bi di way xale yaa ngi dugg ci géej gi di lab sapeur a ngi génne ñiy fecc a ngi fecc ndax mbon gu bon avec ça ñu bëgg ja ñu bëgg ndox avec ça ñu bëgg jàmm di mooy yàlla guddi ak bëccëg kenn solatul yére xale yi jigéen yaa ngi ne dung ci biti te ñooñu ñëpp ci sunu biir kër yi la ñuy génnee kenn wàcc ci jóge kaw asamaan kenn génn wu ci ci kaw suuf ba pare nu bëgg yërmande yàlla ñuy julli di ñaan bëgg yàlla defal na lu baax te dëkk bi yëpp mbon moo fi nekk góor ak jigéen mag ak ndaw kudul ku yàlla namm ñëpp ay moykati yàlla lañ ibadallah bokk na ci mbugal yooyu wa irsaali jarad yàlla nee na maay toog ba mu neex ba may yónni njéeréer yi gis ngeen ci nattu yi sax avion bi nga xam ne dañ ko mayoon Afrique bii nu nekk mooy Sénégal ak Mauritanie ak Mali pour mu leen di dimbali ci njéeréer yi avion bi daanu na barki démb ba ka ko doon dawal dee loolu lépp ci mbugal yi la bokk te loolu lim nu doon dimbalee mooy moo doon pompe yi yàq tool yi yàlla daaneel avion ba te ndox mi daaneel avion bi allahu akbar borom bi nee na wa taslitu zalimin bokk na ci mbugal yi maay jël tooñkat yi di ko teg ci kaw ñu néew doole yi ñu leen di mbugal ku wax rek ñu yóbbu la dig wala ñu yóbbu la rëbës loolu yëpp lu ko waral borom bi nee na man yàlla mbugal gi ñuy mbugalante tooñ gi ñuy tooñ deret yi ñuy tuur xoolal tey adduna bi ni ñuy reye doomu aadama yi comme ay weñ la hawla wala quwata illa billah ndax bakkaar yu bari borom bi wax ci alquran fa kullan axasna bi zambi ñi def ay bakkaar yëpp ku nekk bakkaar ba nga def téye naa la ci fa minum man arsalna alayhi hasiban am na ñoo xam ne dënu laa leen yónnee dënu mu dënu seen kaw ñoom ñëpp ñu dee wa minhum man axasnaahu man axasathu sayha am na ñoo xam ne xaacu malaaka laa yónni mu xaacu seen kaw ñu dee wa minhum man xasafna bihi l ard am na ñoo xam ne damaa yëngal suuf si seeni immeuble daanu seen kaw ñëpp dee wa minhum man agraqna am na ñoo xam ne dama leen a labal ci biir géej wa ma kaana allahu li yazlimahum bul dégg li yàlla def yépp nag ba nga yaakaar na yàllaa leen tooñ déedéet wa ma kaana allahu li yazlimahum yàlla nee na tooñu ma leen de walakin kaanu anfusahum yazlimuun ñoo tooñ seen bopp ndax lañ leen tere ci kaw suuf si lañ def mooy mooy yàlla wala tufsidu fil ard baada islahiha borom bi nee na fa arsalna alayhim tuufaan wal jarraada wal qumala waddafaadi waddama ayatin mufassalat li yëpp ba ma ko yónnee pour ñu tuub fastakbaru wa kaanu qawman mujrimin yàllaa ngi nettali firawna ba mu mbërëw ba beew di noot jaami yàlla yàlla nee na ma yónni na ci moom mbënd yónni ci moom ay njéeréer ma yónni ci moom ay teeñ ma yónni ci moom ay mbott ma yónni ci moom ay deret yàlla nee na ayaat mu fassalaat ay kéemtaan yu wuute kéemtaan yu wuute su ko nit ñi gisee nan lañ war a def tuub waaye ñii fastakbaru dañoo nganda ngandalu wa kaanu qawman mujrimin ñu nekk ay kaccoor yàlla nee na ma mbugal ma mbugal leen wa qawluhu taala wax ji yàlla wax ci aaya bi zahara al fasad yàlla nee na yàqute feeñ na zahara al fasad yàlla lan la utiliser foofu bi muy firi bi muy wax aaya bi ulama tafsir nee na ata amrullah bi sigatil maadi yàlla passé verbe passé la fa la fa utilisé mooy zahara yéen ñi jàng arab fii lu maadi la zahara alfasad bi sigatil maadi ka qawlihi ata amrullah fala tastaajiluhu lu tax yàlla ne mbon feeñ na comme na mu waxee mbugalam yàlla ñëw na ata amrullah yàlla daf koy def daf koy wax pour pour nit ñi xam ne mbugalum yàlla tabaraka wa taala jamono ju nekk mën naa ñëw ni yàlla mbugale woon firawna mën nañu koo mbugalee ni yàlla mbugale woon namrut mën nañu koo mbugalee ni yàlla mbugale woon xawmu aat ni yàlla mbugale woon xawmu saalax ñoom ñépp mbugal yooyu yàlla mën nañu koo inditaal léegi ñaareelu ci aaya bi mu ne bi ma kasabat ay dinnaas ay bima kasabat min zulmin wa taaddudin tooñ gi nga xam ne nit ñi ñoo ko def ci seeni loxo di ko répété guddeeg bëccëg nit ñi di moy guddi ak bëccëg mbokk yi lan ngeen di xalaat tey ci bakkaar yu njëkk yi amoon yàlla mbugal xeet woowu tey lu amul Sénégal wax leen ma ko mooy yàlla guddi ak bëccëg génn leen ci dëkk bi ngeen xool ñun bu ñu yemee sax ci bañ a taw na nu sant yàlla ndax fii nu toll tey ci mbon ña ko defoon ñëpp yàlla benn na leen këpp na suuf si wala mu daaneel asamaan seen kaw wala mu yónni géej gi na leen labal. ixwatal imaan lan lañ def nañ déglu bàkkaar yiñ def ba yàlla teg ñu ay natt wa min az-zulmi ash-shirk billah bokk na ci bàkkaar yi bokkaale yàlla xoolal tey bokkaale gi ku xëy yaa ngi bokkaale guddi ak bëccëg réewum bokkaale du ma fàtte mukk amoon naa amoon nañ ay gan yu war a dem màkk ay ganu naar yu jóge Mauritanie ñëw war a dem màkk ñu ànd ak ñoom di wër dëkk bi ba guddi jot fii ci jàkka ji ñu génneel leen ay sées ñu toog nii ñuy waxtaan ak ñoom yendu ba ngoon ndeysaan di leen lijjantil seeni këyit ma laaj kenn ki benn question laa ko posé ginnaaw ba mu noppaloo ba dallu ma ne ko kay fa taral balad noo gisee réew mi mu ne baladu shirki wa tabarruj réewum bokkaale ak tambaambalu jigéen ñaa ngi tambaambalu kenn sorul yére mu ne bokkaale gi nag kenn xamul te benn fan la fi amagum benn fan mu ne ma baladu shirki wa tabarruj benn fan maa ngi moom ñoo yendondoo Dakar ba ngoon ñu ñëw toog fii di féexlu ma laaj ko question bi mu ne ma baladu shirki wa tabarruj dafa gu fi ñetti fan bokkaale guddi bokk ak bëccëg ñépp dañuy bokkaale barke diw barke sëñ diw yaakaar naa diw bu neexee diw rek ngay dégg gàllaaj yi ñoo ngi takk ba fees ñu ngi takk kanti ngi takk oto yi oto boo dugg ndomba la ba ni kërëj wa min az-zulmi te xam ngeen ne bokkaale inna shirka la zulmun azim ca suratu luqman aya 13 inna shirka la zulmun azim yàlla ne bokkaale tooñ gu rëy la ah ñi koy def guddeeg bëccëg bañ yàlla bu mbugal ñu wa min az-zulmi bokk na ci ba tey tooñ yooyu ñuy def ba tey yàlla ne teg ci asamaan si téye ko ñuy ñaan di julli guddeeg bëccëg di jàng alquran di saraxe yàlla ne tàcc téye asamaan si taaddi hududullah jalgati frontière u yàlla te yàlla waxoon ne wa tilka hududullah fala taqrabuha wa man yataadda hududullah faqad zalama nafsa yàlla nee na frontière baa ngi ne bu leen ko jege wa man yataadda hudud allahi fa ulaika hum zalimun képp ku jege frontière bi yàlla nee na tooñ nga yàlla dafa rëdd na yem leen fii kenn amul ci ñun droit traversé ko mais tey bu yàlla ne yem leen fii ku nekk da ngay jalgati su police rëddee ne yem leen fii ñëpp yem fa su gendarme mu taxawee ne yem leen fii ñëpp yem bu yàlla ne yem leen fii ñu ne ah waaye loolu ay sóob la waay wa min azulmi naas alxish xoolal triche bi dañoo tàmm triche ba sax sunu école yi gis ngeen ren ñaata tricherie lañ jàpp ci bac bi te xamu leen ni li gën a dangereux ci àdduna mooy tricherie su ab élève triché nekk ingénieur ñaata nit lay rey su aviateur su ab élève triché nekk aviateur ñaata nit lay rey su ab élève triché nekk médecin ñaata nit lay rey tricherie baaxul day yàq dëkk te lépp tey tricherie la loo bëgg a def rek neexaleel ñu jox la li nga bëgg alxis fil mikyal wal mizan même ci balance yi même ci balance yi natt ak lépp dara du mat borom bi subhanahu wa taala yonent bi waxoon na ci hadis walam yaqus walam yanqusul mikyal wal mizan illa uxizu bissinin wa siddati lmauna loolu hadis bu wér la saa yi ngeen demee ba wàññi balance yi natt yi dootul mat yàlla dina téye ndox mi di ngeen am ay jafe-jafe am ay tartar wa jawril sultaani alayhim bi gën a dangereux nag mooy di ngeen am nguur gu dëng mu leen di duma guddeeg bëccëg ngeen di yuuxu man yàlla mooy ma guddal fanam mu leen di wulli rek kon nañ seetaat suñu bopp lu tax ku wax ñu yóbbu la dig nañ xoolaat suñu bopp yonent bee ko wax wa min jawri sultaan alayhim bokk na ci wa min zulmi man uhumu zakat tere joxe azaka tere joxe azaka xoolal tey miskin yi ni ñu bëree lu ko waral mooy borom alal yi ñoo dul génne seen alal soo nee fii sabilillah ku nekk juróomi dërëm lay joxe wala fukki dërëm chaque jour fii ñu gis ko boo nee fii sabilillah ku dugal sa loxo sa poos loxo bi seytaane danaan ko moytul billet yi nga gis loxo bi nekk ci biir naan ni billet yi di ko falak lu muy génne fukki dërëm juróomi dërëm bàyyi foofu billet yi li gën a dangereux mooy man u zakat tere joxe azaka yonent bi waxoon na ne walam yamnau zakata amwalihim illa manau lqatar min alsama walaw la albahaimu lam yumtiru sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen bañee joxe azaka yàlla day téye ndox mi kaw asamaan mu ne bu doon du bàyyi ma yi dootul taw bu doon du bàyyi ma yi kon nañ sant bàyyi ma yi wa min azulmi taxayiluhum an tahkimi charillah bokkaal li gën a rëy nag ci liñ def ci bokkaar yi mooy sori atte yàlla topp atte doomu aadama bàyyi atte yàlla su yàlla waxee kenn dootul dégg ñun ñëpp soo nee nañ atte sharia ñu ne na lool loolu ay dafa tardé loolu depuis la woon loolu ah waay yow sa waay bu la ñu delloo moyen moyen âge waay bu la ñu delloo septième siècle yàlla ne lii la doomu aadama yi ne lii la ñu bàyyi atte yàlla topp atte nit yàlla nee na ma téye ndox mi kaw asamaan borom bi sal radi borom bi tabaraka wa taala nee na wa min azulmi annas alghina wa shurbil muskirat xoolal musique bi musique musique musique tey lépp lu ñuy def fam musique ñëw Sénégal boo fi taxawee naan musique daa aram sax kenn du la faale te borom bi tabaraka wa taala wax na ci alquran wa min annas man yastari lahwa alhadis aya ba lan la musique imaamu malik bi imaamu waa sénégal sénégal nee nañ ci ngirum malik lañ nekk yéen waa sénégal loolu ngeen wax ci ngirum malik ngeen nekk ngeen ne malik mooy seen sëriñ kon nag bu ngeen déglulul yàlla déglu lu leen yonent déglu leen moom malik seen sëriñ lu mu wax imaamu malik bañ ko fekkee ci jàkkaay medina mu toog da doon wax anal malik maay malik maay imaamu jàkka yonent bi maay jàngalekatu jàkka yonent bi maay attekatu jàkka yonent bi kullul qalaami yuuxas wa yurad illa saahibu haza alqabr mu jël loxoom teg ci bàmmeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa bëggoon yonent bi boo buy dox ci dëkk bi du sol dàll nee na suuf suñu suul yonent man du ma ci dox di sol dàll doon na jàngale hadisu yonent bi hadis yonent bi la doon jàngale jiit nekk ci suufu tànk bi di ko fet ñetti yoon jiit bi di ko fet daggul hadis bi bi mu paree ki mu doon jàngal ne ko sëriñ bi gis naa tey nga def loo xam ne jaaxal na ma mu ne ko lan laa def mu ne ko bi ngay jàngale gis naa sa kanam gi di jaune di xonq di ñuul lu ko waral mu ne ko boobu benn jiit moo ma doon fet te rus naa dagg hadisu yonent bi moom lañ fekk ci jàkka jooju mu toog ñu ne ko sëriñ musique lu ci yàlla wax musique lu ci yàlla wax mu ne laa yafaluhu indana illa alfusaq ñi koy def te bokk ci sama ngir mi mam Malik ay kàccoor lañ mu daal di xëm ñu yenoo ko ci kër gi yóbbu ko ci jàkka ja di ko sotti ndox yenoo ko ci jàkka ji yóbbu ko ci kër gi di ko sotti ndox ba mu ximmili ko mu naan hal yasmaahu muslim ndax ab jublit dana déglu musique hal yasmaahu muslim ndax ab jullit dina ko déglu ana julliti Sénégal tey musique guddeeg bëccëg rajo yi télé yi saal yi foo tourné rajo oto yi mbedd mi subhanallah kenn du yendu suba ba ngoon Sénégal déggu fi musique al ghina yonent bi nee na iyaakum maa ngi leen di mooy tandikuloo wa istimaai alghina wal maazif fa innahuma yunbitaani nifaq fi lqalb kama yunbitu lma albaqla maa ngi leen di mooy tandikuloo déglu musique ak ay woy ndax ñaar yooyu day saxal naa féq ci xol comme ndox ni muy saxalee ñax yonent bi nee na ci hadis Bukhari la yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna alxira walxarir walqamr walmaazif maa ngi leen di wax ne dana nekk ci sama xeet dana nekk ci sama xeet ay nit yoo xam ne danañ daganal njaaloo danañ daganal sangara danañ daganal soie danañ daganal musique tey daganuñu sangara ku bëgg a ubbi baar da ngay dem ñu may la autorisation nga naan daganal nañ ko ku bëgg njaaloo da ngay dem ñu defal la carte bu la police ramassé guddi wala boo bëggee njaaloo nga dem ci ay place fekk ay jigéen ñu taxaw nga jël dem fay njaaloo bàyyi pare loolu daganaluñ ko daganaluñ musique ah kay dañuy woy sax sëriñ yi dégg naa benn sëriñ barki démb benn conférencier ci ci ci internet bi conférencier bi taxaw di def conférence daan ne man sama oto bu ma fi duggee woy boobu lañ may tegal na dem de bal sax dañuy invité woykat yu ngand yi ba ci wetu jumaa yi di leen woyloo naan leen woy leen woykat sëriñ yu ngand yëpp am nañ ay woykat sëriñ yëpp am na woykat ndax dañoo daganal woy Sénégal alxina wa surbil muskirat naan sàngara xoolal baar yi sàngara léegi dafa dem Sénégal bañ koy jaay mbuus juróomi dërëm boo bëggee naan sax léegi da ngay dem ñu defal la kaas à jeter nga naan jaay ma cent franc ñu daal lay nattal nga naan ndax sàngara bu tasaaroo ba pare ñu bëgg ndox ñëw yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ci hadis fi haadihi l umma xasfun wa masxun wa qazf fa qaala arrajulu ya rasulallah mata qaala ida zaharat alqaynat walmaazif wa suribat alxumuur yonent bi nee na danañ leen alak danañ leen effacé def leen comme ay golo danañ wëlbati suuf si seen kaw sahaaba bi tiit ne ko yonent bi loolu kañ la mu ne ko bu musique bëree sàngara tasaaroo ay way bari ñëpp di naan sàngara na ngeen yëg ne looloo ngi ñëw ñi ngeen di gis ci mbedd yi ngeen defe ne du ñu ay golo da ngeen yaakaar ne bu yàlla ne day masax nit ñi daf leen ay golo day jël ay golo utal leen ay génn déedéet daf lay def nga solu ba pare nekk golo xoola nit ñi nit ñi ngeen gis ci mbedd yi ak golo yi lu leen wutale lu leen wutale lan lan la ñuy solo ndax golo dina sol yére lan la ñuy def xool leen mbedd yi nit ñi ni ñu mel loolu mooy philosophie yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne wa min azulmi zuhurul ura wa zina wal fawahish wa qad jaa fi lhadis ولم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فسى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مدت في أسلافهم الذين مضوا bokk na ci tooñ yooyu nit ñi def def yaramu neen Sénégal dañu ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman loolu fan la feeñ ci mbedd yi ndax feeñ na ci quatre-vingt-quinze pour cent musulman doo gis jigéen jumuur yaramam lépp a ngi ci biti góor ñaa ngi bënn seeni nopp check down door ay crise karas yére yi ñu ngi ko xottate foo xool ñàkkul sax tey ku julli juma sol ay pantalon bu ñu xottate oom yi bënn ween yaa ngi ci biti lépp a ngi ci biti démb ci fajar dama taal télé bi di seetaan journal ma gis jigéen bi def journal ma woo sama soxna ma ne kaay xool kii nee na day def journal kaay xool ko mu ne tëll ñu wane ko ni mu taxawee def journal kilot la sol kilot kilot la sol di def journal kilot kilot ak buddi di def journal ma ne xoolal kii nee na day def journal kii borom télé bi bi mu xëysee da ko waroon wax dellul waaye maa saf tey ñëpp a noppi ñun ñëpp a noppi ci lu bon jigéen ñi def yaramu neen njaaloo bi tasaaroo takarnaase te yonent bi waxoon na loolu su feeñee ci ay nit illa fasa fihimu taun yonent bi nee na yàlla dina leen teg jàngoro yu bon ay choléra ay Ebola feebar yu ñàng yoo xam ne seeni maam xamuñu ko woon boo leen doon laaj xamuñu ko tey xool leen da ngay feebar ba dee nga dem ñu xool ba dee ne la gisuñu la yàlla nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yàlla nu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko alhamdulillahi wahda والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد ففي هذه الآية الكريمة مبكي نكنا آية بتدبي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون بيان آية بداية ليرال للسنن من سنن الله تعالى الكونية yàlla yoonam ak doxalinam bi mu bëgg nga xam ne moom la tracé pour lan li yuhazira al ibad ngir mu moytandikuloo jaam ñi ngir mu xupp leen anil istimraari fi gayyihim wa dalalihim wa zulmihim ngir ñu dëpp ci tooñ gi ñuy tooñ ci réer gi ñu réer ak yàq bi ñuy yàq kaw suuf dafa nekk ci aaya bi borom bi dinu xupp pour ñu wëlbateeku amma ma yazharu fi l ard min al fasad innama huwa bima kasabat aydi nnas lii ñu gis tey yàqute ci suuf si kenn defu ko ku dul doomu aadama yi kenn defu ko yàlla bi muy sàkk jaam yi di leen wàcce ci kaw suuf malaaka yi dañoo wax ak yàlla ne ko atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak yow yàlla da ngay def suuf ñu fay yàq da ngay def suuf ñu fay yàq tey doomu aadama yi loolu malaaka yi doon wax loolu la doomu aadama yi def aaya boobu loolu lay tekki sunu borom di ñu won aw doxalinam ak bëgg-bëggam ak yoonam bi muy jaaral jaam ñi summa bayyana azza wa jal hikmatihi fi zalika li yuziqahum baada alladi amilu ci aaya bi borom bi nee na lu ñu def rek dinaa leen ci ñamal lenn su fekkoon ne lépp lu ñu def ma fay leen kon jeex na kon mbugal naa leen waaye dañuy def cent ma ñamal leen benn un ma fay leen un bi ñuy bëgg a dee un su fekkoon ne cent bu ñu def yàlla dóor ñu cent yi kon ñun ñëpp dee nañ waaye dañu mooy yàlla téeméer yàlla fay ñu benn allahu akbar ngir bëgg nu tuub ngir bëgg nu dellu ñaata mooy yàlla lañ def yàlla ndox mi doonga la téyegum ndox ñu am problème su yónni woon géej gi walbati asamaan yëngal suuf fuñ jëm fuñ jëm waaye mbokk yi nanu yëg ne waxtu tuub jot na nan leen tuub yaa ayyuhan naas inna waaqi'ana naatiq bi haalina tey sunu actualité lu ñuy dund dafay firi li ñu nekk kon li nu war mooy tuub képp ku bëgg a wax tey dëkk bi ni mu mel waxal ba sonn jarul ngay xooli benn téere nanu tuub fa ya ayuha annaasu tuubu ila allah tawbatan nasuh qabla an yaatiya ahadakum almawt fayaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib tuubu ila allahi aza wa jal qabla an yahilla alayna ba'du ghadabillah nanu tuub tuub bu sell balaa meru yàlla di wàcce ci ñun parce que démb maa ngi liir kenn ci sëriñ yi borom xam-xam yu mag yi ca kowet tudd docteur Nabil Iwadi mu ne nahnu fii ayaami dajjal mu ne instant yi ñun ñu ngi ci jouri dajjal dajjal a ngi waaj a ñëw te loolu leer la ku gis tey àddina bi nu ñuy dundee tremblement de terre yi guerre yi ni ñuy reyee nit ñi géej gi li muy lekk mbon gi ni mu amee jigéen ñi ni ñu futteekoo njaaloo bi musique bi tasaaroo reyante gi kirim bi am wallahi nahnu fii ayaami dajjal dama lire point yi ba ci yàgg damaa tiit fay sama portable ndax bépp bu mu wax point bu mu wax teg naa ci bët nahnu fi ayaami dajjal ayuha al ahbab loolu mooy nekk prochaine sunu xutba fii buñ ko yàlla fekkee allahuma arina alhaqa haqan wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahuma ya hadi ihdina الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله